xam naa nag du ñàkk bàyyi ma dem <laughs> waa Mbour. ñu nuyoo ñaañu rek waa Mbour ñu nuyoo. waaw waaw ñu nuyoo ba pare après ñu ñëw ci père. bi yoon dafa yàgg dafa gaaw ci feebar de. santaan <laughs> santaan pas de maladie. waaw yal na ko yàlla may. yàlla yàlla may tan nga ñëw nga bëre normal. Mm-hmm. fekk nag xam nga tubaab la. mbër bu raxee tubaab rek day am yu bari ci rax. Mm-hmm. waaw pas de maladie damay wax rek <coughs> ngay da moom kay moom. dañ ko ñaan ñun ñëpp rek. yàlla dañ ko ñaan rek. Mm, amiin. yàlla defal la ko defal ko Père Gaston vraiment. amiin defal ko ñëpp. fan mm-hmm. mu àggale tamit ak sago. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. Euh, di nuyu plateau bi yëpp aussi mbër yi ma fekk Weuz Diambar suma adversaire Alioune Seye Pakala Forza ak nga xam ne moom mooy Zos Abdoulahat ak Makan di nuyu Sénégal yëpp. mais nuyu aussi suma yaay ji ma bàyyi suma kër di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam lu yàgg lool Talla Mbeng bu Yoff aussi maa ngi koy nuyu Idi Ndiaye Bamba Sarr bu Dage Joseph Sidibé ak Mignane Sarr sama lakkal. il faut lancer un message à tes amis tubaab là. effectivement doomu doomu Aline Sarr. Euh, bi nekkoon euh, président CNG bi Mignane Sarr suma xarit la suma genwàll la tamit ak wal joojo fa may liggéeye tamit muy waa sama DG bopp maa ngi koy nuyu Cyril Bathily. za mais dégguñu loolu ah. ak ña nga xam ne vraiment ñoom laay liggéeyandool ñëpp bàyyiwuma kenn. effectivement ni ko père waxee aussi tamit je la je lance un message à mes supporters xam nga qui sont venus de la Belgique de la France pour assister au combat du 28 donc je les remercie de vive voix. et incha allah rabi comme je le dis toujours ils m'ont toujours accompagné dans mes combats ils sont toujours là et j'espère que le 28 inchallah je vais la victoire sa adversaire tontu ci loolu wës jàmbaar wës waaw onze billahi mina seytaan rajim wës star ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu waa tundu kajoor gi yëpp di nuyu waa Dakar di nuyu waa yarax yi nga xamante yi nii foofu laa fekk baax di nuyu waa ngaay kon ñoom Laye Ndiaye. waaw yaraax di nuyu waa Ngaye di nuyu suñ papa As Diagne ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu As suñ papa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax As Diagne ngi koy ziar di nuyu ñi ma àndal muy Yunus Boga di nuyu ki nga xamante ni mooy Daouda di ñaanal ki nga xamante nii moom laa daan àndal si genre yu mel nii muy Ousmane Fall. ak Mara Fall ñoo ngi leen di ñaanal fee ñu nekk gënal leen fii ñu jóge ci barki Seydina Mohamed di nuyu sama adversaire santan ñi nga di nuyu Zos Forza Seydi Seydi Ñor Bagala Big Taf Bisu Ngoone Père Gaston ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu bépp autorité bi nga xamante ne yaa ngi nekk Yaraax muy Babacar Meng Joseph Sarr di nuyu Fat Diouf di leen woo bu baax a baax a baax ci combat bi ñu jëm di nuyu Meng Gueye bi nga xamante ni ngaay la nekk ñoo ngi koy woo si combat bi mu jënd ay ticket luwee ay kaar mu ñëw waaw di nuyu ñëpp waaw di wax biir su ngoone nag sa gaa yi nii la sama waa ji hmm. waaw. est que doo tekki sa airport yi waxal sa gaay yi laa wax. ma doo tekki sa airport yi wax leen. maa ngi dégg bu baax. Hmm. waaw sa sponsor yi nii. dañoo jàppale hmm. am na bari. non non làmb làmb làmb du doy. du doy sponsor làmb ñun ñun suñu. nga suñuy suñuy ay millions sponsor yi ñoo nag ñëw jàppale nañu muy. jus bii nii dama ko bëgg trop EDK la. yow est laa nekk la comme yow parce man américain laa gis nii sax. xam nga yow yow xam nga man comprendre ma sax. dama koo jamais trop rappeur laa tegoon sax. dama ko bëgg trop mais ci suuf lan la. waaw lii ay bagage la ay mbir la. ak bant bi. waaw lii lépp ay mbir la. c'est ki la digal pom bi pom bi ci suuf pom bi ci suuf. waaw te xam nga nag kii tubaab la ay dessert moom ci nga koy jàppee moom. <laughs> loolu moom mën naa ne moom. ci dessert yi pompe 100 francs la. waaw pompe 100 ah ba gis nga. mooy saraxam dëgg la laaj mbay nee na ketchup Dakar la ko defal. la ko saraxee pompe 100 mën naa nekk tubaab la ay dessert lañ bëgg. waaw génnee nañ saraxee pom la. danga koy lekk wala koy saraxe ñoom danga koy jox gaawal yow. pomme la soo moytu sama koy jëlal boobam lekk. te du ko tey daal. mais mais mais lan ngay wax sa sa sa adversaire. waaw ah, sama adversaire amul dara lu ma koy wax ins bi li ñu waroon wax yëpp daanaka wax nan ko le 28 li si des bëri xëy na jëf moo moo ci des ndax wax ay plateau plateau toog nañ ko jàppoon nañ combat bi mu. non xam nga xam nga confrontation bokkul ak plateau yooyu. parce que plateau yooyu seen plateau face to face yi la. ñun ñun dañu amoon habitude di def combat yi di def di def ay débrief après combat ba mu leen ñu diwa daan mais xam nga yooyu parfois day metti ci yenn léegi mais yéen seen bos bi comme dafa yàgg te wax dëgg yàlla ay ndaanaan la ñu dajale ngay xale par rapport ak moom wala. yow daw yaa. moom est-ce que dinañ nangu loolu tamit parce que esprit âge bi ñu fi ñu fi. loolu loolu moom du problème. maa si gën a doon xale. plateau ba mu si yow léegi est yaa ngi si jumaa. tax a nga jàpp ni mag la ba tey ba ba tax la ba mu daj moom moo ci mag. moo ci mag. mais est-ce que li jël seen bës bës rek. magul ñaar ñi toog de. kan laaj man ngóor sos wala wala wala saaga ñor. ngóor si moo tax Forza bi bëri. Forza man la saaga. Forza dëgg waa kenn du ko dindi parce que. mais taxul ñu ne mag la ba fenn fi <laughs> mais xam naa ne boobu maa ngi dem maare moom maam biram ci xolam bu sell boobu maa ngi dem maare man xam man maare laa xamoon di dem géej. si xolam bu sell la. moom bi daje Mbour. yow mu ne ma booyee. dama bëri yow nekkoon. ba di rote ci yow ni di bëre grand combat. da ngay mu ngi développé lu moom déjà je pense loolu dégg la ci am. lan dégg-dégg rek la am ci loolu. Mhm. Euh, euh, mu ngi koy di wax léegi parce que tamit loolu di nettali. Mhm. man dama ne mareyeur laa woon. Mhm. nekkoon quai de pêche de Mbour. doon fa liggéey donc moom yàlla boole woon ko ay mool yoo xam ne doon liggéey ak man ma di ko teg ba un jour ma ne ko góor mu ne ma ne ko yow boo lekkul xaalisu làmb rek da ngaa ragal. am nga cër si làmb ji. dëgg la loolu moo indi li nga xam ne nii mooy li kii di wax. donc ci par conseil la bëree ji quoi sa conseil. bon je je sais pas mais en tout bari na lu mu koy wax ne bu ma duggee ci làmb. tey jii Santa bokk na ci li ma dugal ci laam moom des fois daf koy wax je pense ngorom moo tax muy wax loolu. mais mais mais question bi biisu hmm. euh, euh, fan nga nekkoon. ba kii yow nga dugal ko ci làmb léegi dem ba tey muy bëree grand combat sa kanam yow. ah mais fii ñetti grand combat ñoom ñoo fi nekk. mais jiitu. mais on est obligé affiche day am. Hmm. ci biir combat yi six combats ñoo ci am ñu ñoom mënuñu bëri ci benn heure bi. Hmm. c' est impossible. et que benn affaire tamit am na. suñu combat ñun dafa dabe sama combat wës jàmbaar bi muy taxaw. fekk na affiche bi taxaw na ba pare. Mhm. est-ce la. Mhm. donc tey jii Alioune Seye Zos combat la boo xamante yeneen i combat xajoon nañ ci. Mhm. mais tey jii père il a opté pour jël. 28 Santa gis eh Santa seen combat combat bu ndaw la de. non ah, non non j'accepte eh, eh, cela pas souci. par rapport ak bu ndaw la tey boo gisee tey am na yenn affiche yu amoon affiche yooyu tooguñu fii. Ah. mais ce qui dit ne ce jour trois affiches phares ñoo ci nekk yoo xam ne yëpp ay grand combat lañu. Mhm. mais ci biir grand combat yooyu am na boo xam ne moom moo leen ëmb. Mhm. muy Pakala ak Forza. te Pakala la sax Santa ak Weuz yeneen mbër sax war nañ mën a ñëw bootu seen ginnaaw. parce que c'est des grands ah, champions. c'est des grands lutteurs. non c'est danoo jiitu. voilà boobu danoo jiitu ba nu taxawal leen. kon su ñeneen ñëwee ku mel ni Zos. nga xam ne tey. tey suñu doon wax rek grand combat moo war a bëri grand combat. mais dafa ñëw fekk ci ñii waaw waaw. alors kon mënu mënu la pousse ñii. mais la moo tax moom bëriwul grand combat. dafa fekk ñii combat bi taxaw na. ak bës bi sax ko gën a lancé sax. mais question bi ñëpp retour Zoss la ñuy wax. non retour Zoss dafa dafa sedd. Ah, ah. par rapport ak Zoss bu amul xadar bi ñu pourquoi. sa choix naka la porté woo ci Zoss alors que mu jékki-jékki ne arrêté na làmb di ñëwaat yow nga jël ko. naka la ko indiwaatee voilà est-ce que ko comme comme ni nga def ci Bombardier bu mu dem MMA est-ce que nekkul noonu nga def na ko Zoss il est nga ñëwaat. yii MMA mu baaxul ci boppam mbëru bëgg la. MMA bu tuddee MMA. xam nga li tax nga jox Balla Gaye ñeenti combat Balla Gaye c'est un lutteur qui vend. ok c'est un lutteur qui vend. ñu day liggéey Zoss day jaay Zoss su demoon dix ans su dellusee su duggee ci làmb ji ñëpp ni Zoss d'ailleurs koo gis de il faut que ñu ni Zoss wax Zoss dafa dellu si Zoss dafa dellu si da ngay dégg ah. am na mbër yu demoon ba dellu si kenn di wax ni donc loolu nag mais yàlla la bi daf ko def ci làmb ji dafa warul woon dem sax nag dafa waaw dafa warul mais li tax mu dem moo ko xam dem na dikkaat na lii moo gën xëy na ci moom. mais dikkaat bi yow yaa ko contacté wala moo la contacté père ñëwaat na. non non non non émission ci la lu nekkoon. Mhm. benn Instagram ñuy wax gaa yi fexe ba dugal ma ci. ndeke gaa yaa ngi waxtaanee Zoss man leen noonu mais Zoss dafa bokk ci làmb ji day dellu suñu dugal Zoss. waaw Zoss ndi répondre leen Père Gaston man ba dama naroon a bàyyi mais Père Gaston su bëggee mënu ma bañ. aye mais foofu sax dooguma la Père. mi bi mhm. bien avant muy def retour mhm. moom mën na ma témoigner daje nañu Saly. ma ne ko Zoss mu ne ma ne ko tu as tort nga bàyyi làmb. Mhm. parce que làmb da ci am cër. te ba léegi sa wërsëg daf ci ne.